Tange Tange eh, est-ce que est-ce que est-ce que c'est possible nga nga nga expliquer maa ngi jot message de est-ce que mhm. c'est possible nga expliquer ce qui s'est passé à Viviane lutax mujjé dem bon ça à dire xam nga problème Viviane ñu bëri ñing koy wax Wa. wax naa ko barki démb wal fajiri mhm. nit soy wax da ngay wax ci li nga mën maîtriser wax li nga fekkee waaw dëgg la nit da ngay wax ci li nga maîtriser wax ci li nga fekkee ba Sénégal ñu bëri. ñu ngi ci télé yi di def ay audio di def ay vidéo di wax. man Viviane. Hmm. su ma ko yéenewul duma ko yàqal. no lool loolu hmm, ndaxte Viviane dama ko defar man. dama bokk ci carrière am ñi ci participer fu mu nekk fi ñetti dernière tournée yi Viviane def Europe yëpp man maa ko def man Tange Viviane yëgul fekkeewul. Mhm. maa ngi toog wut ay dat jënd ay billet d' avion yóbbu ko ba pare publier ko. 31 mhm. décembre Viviane bu mu demee Gambie man maa dem couvriral ko événement am. waaw. 22 décembre 2019 bi Awa Kermel bëggee défilé wu Luxembourg ne ma mhm. Tange kañ laay jël man maa ko ne jëlal Viviane maa réglé lépp man maa def soirée boobu. kon Viviane yaakaar naa ni sama sœur sama jigéen aduna nag nit day juum moo géet bi muy préparé événement mhm. Las Vegas Fashion Week la wax mhm. ci Las Vegas Fashion Week boobu comme ay tailleur ñi ngi woon fii ñoom moo duggee héritage mhm. bamba partenaire couture juga càmbala mañse ñu woowaale yeneen couturier Sénégal pour ñu ñëw def design défilé ci biir défilé bi nag ñu ne foog ñu boole ci ay artistes nga xamante ni le temps que bi di changé am beneen artiste bu ñëw def playback waaw ñu woo artistes yu bëri nag

mu mhm. jox ñi beneen numéro nee na nañu woo kooku muy Mama Tene mu nekk Prince Art waaw ba ñu woowee Mama Tene Mama Tene ñu waxtaan ak moom ci cachet tout cela mu am na mu waxee mhm. moo génn ma ah comme loolu la nañ ko bàyyi mhm. parce que lii du soirée du concert te gratuite la waaw fekk avant loolu sax Amina Poté ci boppam dañ ko ci boole woon ko mu ñëw présenté ni Brigé Boubs ak Aba Mm-hmm. aba dernière minute Pape Cheikh newu fa te moom moo nekk TFM programme bi bare moo tax ñëwut buftu mm-hmm. ñëw Amina mm-hmm. Poté bu mu déggee loolu dégg wax nañu Viviane xaritu Viviane la mu dem toog kër Viviane wax ak Viviane légui ci la Viviane wax légui nañ ko fay taw du ma wax cachet bi waaw jëndal ko billet d'avion mu ñew comme invité waaw ñu delluwaat dem ci Ibou Ndour ñu ne ko Viviane d'accord na lii fekk Ibou Ndour sax beneen prix la waxoon moo gën na su loolu la nañ ko bàyyi Viviane jaru ko buy ñëw. Mm-hmm. ba dernière minute Viviane moo ñëwaat ci ñun. Oh. ne d'accord nañu jëndal ko billet première classe hôtel bu mu dëkk. Mm-hmm. ak ñu fay ko cachet temps. Mm-hmm. bu mu waxee loolu ñu yónnee ko avance am. Amina yaa ngi may dégg bu baax. yow rek laay dégg xam nga contrat amul amul dara lu ñu bind ci kayit. foofu laa doon buggee poser question amul dara amul dara lu ñu bind ci kayit lépp ci téléphone la no ak téléphone. nopp ak téléphone. Mhm. ñu yëkkati avance yónnee ko. Mhm. Viviane su ko neexoon suba sax du ñëw. waaw. su ko neexoon suba du ñëw xam ndax du ñëw. Mhm. suñ ko nee jox nañ la avance amuñu benn kayit. waaw. yaa ngi dégg mais lépp dama jàpp ni contrat moral contrat la parce que nit ku nekk sa kàddu nga am. Mhm. alo voilà maa ngi léegi bi loolu amee ba mu jëlee avance am dem ba ci biir ba xam ne commencé nañu publicité nee nañu Viviane day ñëw. waaw. mu woote waat moo géet ne ko soo jëndalul Zeyna billet dafa war a jàngi si kon duma ñëw. Viviane a wax loolu. Viviane Dakar. Mhm. xam nga chantage commencé na ñëw. Viviane moo wax loolu. voilà. Mhm. léegi mu ne kon du ñëw te su boobaa yéen a yàqule parce que annoncé ngeen ma pare te américains yi duñ ma gis te dootuñu leen gëm. gars yi yaa ngi ngi déglu Viviane moo wax loolu. yéen ñi bu baax. ñu ne lépp garaawul na garaawul nañu bàyyi noonu. Mhm. xaalis du dara billet d' avion comme ñi ngi jëndal leneen nañ ko jëndal. Mhm. ñu yónnee doomam Zeyna billet première classe Zeyna liggéeyul ak Viviane du manager am du dara. non non du su waree dem jàng su na ko yaayam jëndal billet wala papam wala keneen jëndal ko billet. Mhm. moo géet moo jënd billet pour mu jàngi. voyage nak sooy voyager avion bi du avion du jet privé nak da nga koy bokk nit ñi. bien sûr. ba ñu ñëw ba aéroport Ndakaaru ñaa xarañ loo mi ngi koy snap di ko naan sa bolu tegle yi mu daw leen taxawé na le. Mhm. bi ñu wàccee New York ñi jël sen bagage mu taxawé na le ñu la jëlaat vol pour Las Vegas moom mu dem fanani keur Moussa Versailles. parce que bëggul bokk ak ñom hmm. boobu. problème bi problème fofu la commencé mais loolu yëpp ñi ngi maîtriser. ok. ba ñu xëyee Viviane egg Las Vegas. man fi ma nekk fi ma ak aéroport dix minutes la. Mhm. ñoom moo fi ñu nekk ak ñoom Babacar quarante cinq minutes la ak aéroport. Mhm. comme vol bi egsi na Babacar diaspora woo ma ne ma Viviane egsi comme man yaa nga oto bu ngeen taal seen oto ngeen def GPS ngeen dem jëli Viviane. Mhm. man ak Gomis ñoo ñëw aéroport jël ci Viviane keneen andu ci. gis leen. keneen àndu gis na solar bi ba ñuy egsee gomis jël photo bi leen photo comme arrivé la événement la foog ñu photo ñëpp seen arrivé. Mm. ni ñu ko defee ak ñoom buub su ñoom saa Zeyna mu ne ko bul ma photo. Zeyna wax loolu. gomis wàccee appareil am fekk man commencé woon naa def benn YouTube live soo xoolee une minute cinquante deux la. Mm-hmm. bi ma déggee loolu ma arrêté sama live arrêté parce que nee bul ma photo man ku photo du ma si si. ma jël chariot bi Viviane. ay bagage am puus ko jël ascenseur bi yéegee ko fi ñu paak ci parking bi moo ubbi oto bi dugal ay valisam dugal ko ci biir oto bi. Mm-hmm. bi ma ko dugalee ci biir oto bi Viviane commencé indi ay chichi nee na moom du xaar parce que boobu Didier Khoulé ñëw na mi ngi aéroport. Dmitrice euh, Couture ñëw na mi ngi aéroport. Bamba partenaire Couture ñëw na ñi ngi aéroport ñoom lépp la ñu war a jëlaale pour yóbbu leen. Mm-hmm. léegi Viviane di kaas ne moom day dem du xaar kenn. ma mhm. woo Xaadim ak Babacar mhm. Diaspora ñu wàccee valise yi ñoom ñu jël benn oto ñu yóbbu Viviane hôtel Paris hôtel mhm. man ma dem jëli Bamba partenaire di jeexule ak ñoom maîtrise ak Sankara Mbaye waaw bi ñu ba ci hôtel bi Xaadim ñëw ci ñun ne la y a un problème ne ko lan mooy problème bi Xaadim caqum ko Xaadim voilà nee na du dëkk fii ma ne ko lu tax mu ne ma parce que fii salaam ñoom ah, bugg fii lañ mu ne ma wax naa ko moo nag moo mi ngi ñëw mais moo mer na. nee na kenn du ko ah. imposé cinq étoiles la wax yóbbu nañu ko hôtel cinq étoiles. Hmm. man Tange Tandian man maay wax de sama aqulaay taala su dee li may wax du dëgg yàlla bu ma gis samay njëriñu doom. Hmm. yàlla naa la. Hmm. mu ne mu ne ma naa ma ne ko moo su ñëwee bu mu defalee noonu Viviane suñu jigéen la. na calmer rek xam naa ne dafa sonn ci voyage bi. na xool li mu bëgg mu defal ko ko. ma woo Baxaw Dioum depuis Sénégal ma ne ko Baxaw Viviane de mi ngi commencé déconné comme yow maîtriser nga ko doo woo waxtaan ak moom mu calme man maa ko woo Baxaw mi ngi may dégg. ma ñëw ci hôtel bi moo ñëw ñëpp dar ko ma woo mu ci pet ma ne ko moo kaay mu ne ma naa ma ne ko wàccal calme Viviane suñu sœur la nañ ko gérer. Boubs ma dajeeg foofu ba ne ko voilà Boubs ma ne ko yow diplomate nga mën nga arrangé àndal ak moo ngeen toog ngeen waxtaan ak Viviane. ñu dem moo ak groupe sa ànd ñu toog ñu waxtaan ba pare Viviane neko ko waa d'accord moom du dëkk fii moo ne ko garaawul fan nga bëgg mu ne ko village au hôtel moo ne waa dinaa dem jëlal la suite foofu Zeyna si la taxaw doomu Viviane Zeyna taxaw di saaganteeg ñoom di laan naan xanaa xamu leen sama yaay sama yaay star la sama yaay du ñëw ngeen koy bokkaloog hôtel ak ay ñoom ñaa xarañ loo ñu ne ko xanaa yaay manager Viviane mu ne ko waaw ah bon gaa yi Zeyna Ndour doomu doomu Viviane moo indi coow lii boobu yëpp Viviane waxut. man yaa ngi koy dégg. yow rek laay dégg na dem Bellagio hôtel jëlal Viviane suite. Hmm. bañ ko jëlee ba pare mu woote téléphone ne léegi Viviane na jéggi xam nga Bellagio ak Paris benn da ngay jéggi tali hmm. na jéggi pour mu ñëw bagage am ñëw loose. Zeyna ne yaayam du dox. i Zeyna Ndour ne na du dox di jéggi yaa may dégg bàcc gumba la xaritu Zeyna nduur la xamante nañu bu baax Amérique la ñu xamante bàcc nee na garaaw mu jëlal oto bi tourné jël ko bàcc bu mu jëlee oto bi dem di jëli Viviane. Mhm. yaa ngi may dégg. yow laay bàcc ci biir oto bi xaadim mi ngi ci biir Viviane ngi toog waxul dara. Mhm. Zeyna commencé di saaga xaadim. boobu bàcc mi ngi wax ak moo boobu bàcc mi ngi wax ak moo géej téléphone. xaadi mun na ko jur de. parce que xamante nañu ñoom ñoo xam seen Amérique muy saaga ay ndey sama yaay nii sama yaay star la sama yaay du dox sama yaay muy saaga ndey. moo géej dégg loolu. Hmm? ne man ak bu dara dul dara la boobu yoruma ñaar dërëm ñaaruma ñaar fukk. du ma def événement bu fii di ko indi xale bu ndaw di ko manqué respect. Hmm. boobu la Viviane ñëw ñu dem ci biir suite bi. moo compté xaalis bi. ne ko Sankara Mbaye. Hmm? filmel ci Las Vegas la. am nga droit hmm. filmer ci biir hôtel am nga droit wax ni téléphone enregistré ko mais amoo hmm. droit def ko Californie. état bu ne ak sa droit. waaw dëgg la. mu ne ko maa ko fi indiwoon pour show bi mais show bi dañ ko focus ci designer yi. comme coow am na. bàyyil ma jox ko deux millions cinq cent yi ñu waxaale woon. Viviane ne du deux millions cinq cent trois millions la. Mm-hmm. yaa ngi dégg wax ji. Mm-hmm. moo géet jël téléphone woo Ibou Ndour Dakar Prince mm-hmm. mu ne ko ñaata la ñu mu ne ko deux millions cinq cent. mu ne ko d' si kanamu ñëpp mu ne ko garaawul. ne ko Viviane du trois millions nga mu compter ko trois millions jox ko ko ne ko lii lañ la waroon fa mu jël billet première classe Las Vegas New York. jël billet première classe New York Dakar pour Viviane ak Zeyna. mu jox ko. ne ko mënatuñu liggéey ak yow. mu ne Sankara Mbaye moo géej daf ko indi pour mu koy esnabal pour li muy def mu siiw. ñaa xalañ loolu dañ ko jëndal billet première classe di ko fay ay millions pour muy def loolu mooy seen liggéey dañ koy def. bien sûr. bi Sankara di filmer yéen a ngi dégg bi yaa ne ko loo may filmer. Mhm. loolu la ñëpp gis mu ne dañ ma fi indi pour ma filmer. Mhm. mu tourné mu ne ko comme ki ma fi indi mi ngi wax mu tourné caméra ci moo géet di ko filmer hmm. bi mu filmer moo géet ba pare moo géet jël xaalis bi ak billet d'avion bi joxe ko Sankara dugal ko ci nabam xamul ndax loolu hmm. suba Viviane mënoon na ñibbi Sénégal ne dañ ma indi ba États-Unis fayuñu ma dara joxuñu ma kan moo koy gëm waaw loolu am na dëkk preuve la bi ko Sankara dugalee ci biir nabam ñu bëri reprendre ko dugal ko ci site internet yi. Mhm. VIP people Tange Tandian moo ko moom. waaw ci suba ba léegi xaw ma lu ci xew. dama am équipe bu ciy liggéey. Mhm. ñooñu tamit comme Sénégal ni ko dugalee ñëpp dugal ko. ñoom tamit ñu dugal. ba ma xëyee la lendemain laa koy soog a gis ma gis Sénégal ay président fans club Viviane def benn vidéo tapet la parce que su doon guerrier day wone kanamam audio la de non tapet la tapet la. su doon guerrier day wane kanam taxaw Tange Tandian yi Tange Tandian ni Tange Tandian yaa bindal Viviane dafa gis fu ma yoree ban big di bindal Viviane. Amina Youssou Ndour moom moom TFM est-ce que lu génn TFM yëpp Youssou Ndour moo ko wax. non non. Bouga Bougane Gueye moom moom Sen TV est-ce que lu génn Sen TV yëpp Bougane Gueye ko wax. non pas du tout. nañu arrêté ñu nekk sama der bi di wax man noppi na Thiel. ba ñu bindee ñu ne lu tax Tange bindal Viviane dafa indiscipliné xaaral ñu waxal Tange sosal Tange mais vous êtes le cadet de mes soucis vivian maa ko amal njëriñ amaluma njëriñ maa koy signal ay contrat defal loo ko ay tournée jox ko caché vivian mooy def événement ma siiwal ko ñëpp xam ko man ak vivian ci coulisse yi la ñoom fans yi ak vivian devant la scène la la fa xew xam naa ko Vivian xam na Tange man xam naa Tange vivian di moins dégg nga wax ji ah leer na kon keneen ku ci taxaw wax ci leneen Amina dafa daw xaar ñu xaaral mu ñëw. connexion bi daw. voilà ma ne ko du dégg nga wax ji. waa dégg bu baax a baax. ku la wax leneen la deme lu dul nii waxul dëkk ñu naan non dafa ñëw bañ mu bale moom moo géet séqu ñu bale xaalis bien sûr tey xam nga ñu séq ak moo géet bale gis ngeen leen ci stade Boubacar Diallo da nga ko gis mu bale pas du tout ko da ko gis mu bale guy gi da ko gis mu bale parce que séquñu ko moo géet ñi séq ak ñoom bale ñoo ko séq moom te duñ ko bañ ay waykat lañu chaque jour ñu ñëw États-Unis way ñu baatara leen sànni ko ci suuf ñu for ko. yàgg na. wéyal maal. yàgg na yàgg na Sénégal nañu noppi. gis nga su ma waxee dëkk bi toj. loolu kay xam naa ko. bés bu ma waxee toj. c'est Viviane Chidid laa koy wax sa dunduur maa ngi jéggul xam na kuy Tange Tange Tandian xam na kuy Viviane. Mm-hmm. ñett xamuñu ñaar xam nañ. Mm-hmm. ku jóg di défendre. Mm-hmm. demal nga défendre sa yaay wala sa pap wala sa mag wala ci li nga xam. génn leen ci showbiz bi xamu leen ko. dañoo fekkee démb tey soog a ñëw. xam nga ku ci jóg wax. suba ñu wax. seen artiste ngeen di yàqal. te amaana ah, Viviane su génnee album mun leen ko jënd dix mille. Viviane su tegee concert da ngeen di ñaan billet. Mhm. man damay lijjanti ay contrat ay millions jox Vivian. Mhm. Vivian maa ko njëkk a joué loo PAO Brésil au cœur de Paris Arc de Triomphe. Mhm. Vivian maa ko joué loo Pavillon Le Doyen foo xamante ni jabaru président ñoo fay joué biir Paris. huitième ginnaaw kër Emmanuel Macron. Hmm. Viviane maa ko defal tournée Suède defal ko Belgique defal ko Brême defal ko Hambourg defal ko Anvers. at bi dellu ba jëlaat ko Torino yóbbuwaat ko Belgique yóbbuwaat ko Hambourg. yóbbuwaat ko Torino di ci liggéey lu weex tal fii laay dëkk nag dëkkuma fi loolu beneen wax la du man maa ciy tontu promoteurs yi ñu ngi ciy ñu ngi ubbi seen bët Zeyna moo doon saaga parce que mi ngi laa dox Zeyna doon saaga parce que Zeyna moo taxaw ci hôtel bi Las Vegas naan sama yaay la du bokk ak kenn hôtel Las Vegas nag sooy wax star star fii la wàcc nag fii la fekk baax star fii la fekk baax star yi gën a mag da nga leen di gis ñuy jéggi tali bi di dem di taxaw ak nit ñi di foto ak nit ñi oui Amina sama connexion day mooy mooy mooy daw nii. ma ko xam nga star soo ñëwee ba Las Vegas di wax waxu star je crois mhm. que jeex na wax. jàpp ne Sanex Samba la ci théâtre Sénégal ñëpp ko respecté. Mhm. Aziz Niane dañ ko respecté pourtant ba ñu ñëwee aéroport dañ leen photo jëf vidéo ku nekk wax ñi jël leen yóbbu leen seen hôtel yóbbu leen ku nekk fi nga dëkk. Mhm, te kenn coowut. mais mais man je pense que comme xale la. mënoon nañ ko ignorer rek bañ a bañ a bañ a a bañ ko ah, xam nga tey jëfi xale la Zeyna états lay jàngee hmm. moo bàccee gumba la xamante nañu bu baax a baax moo xaadim xamante ñu bu baax mais Zeyna tey su ñëwee ànd ak yaayam jàng moo koy indi ba egg aéroport dafa war a toog jàpp njaamuram yaayam def prestation mu pare dem jàngi hmm. warul dugg ci business yaayam ndaxte maîtriser wu ko c'est pas la première fois fan su Viviane yi ñu ngi may dégg hmm. Zénith ak Bercy Zeyna taxaw na di saaga foofu ay nit ba ñooñu bëggu ñoo ñëw Zénith moo design bi nekk Italie Viviane lay noyee moo doon calmer ñooñu. mais loolu yaayam war na ci parce que yoonam nekku ci saaga nit ñi Zeyna liggéeyul ak Viviane yaayam mooy star yaayam mooy waykat yaayam mooy génnee album. Mhm. du moom. yaa ngi may dégg. Hmm. ci yàlla. kon problème bi Zeyna moo ko indi. xam nga Viviane ñi bi na Sénégal démb. Hmm. bu mu yeggee aéroport fans yi dañoo ñëw foofu def dix huit ak journaliste yi pour wax ko mais Viviane da leen wo dàq leen ne leen bëgguma coow dama bëgg a coow li fay. loolu moo ko ah, arrangé. nañu fay coow gis nga luy fay coow moo gën luy taal coow. dëgg la. jël ndox sotti ko ci taal mu fay moo gën ngay jël essence di ko sotti ci taal parce que dina lakkaale kaasu jaamu. waa dëgg la moom. nañ leen ñaan apaisement moo Viviane sœuram la mm-hmm. Viviane moo mm-hmm. frère la mm-hmm. moo Vivian. promoteur la Viviane waykat la ñoom ñaar dañuy soxlante te suba dañ leen parce que su business événement Viviane doxal keneen ne Viviane Viviane bien sûr kon lu ñaaw jaru ko fi <laughs> showbiz moo mel noonu soo maîtrisewul showbiz da ngay noppi. Mm-hmm. américains yi business la ñuy def amuñu ennemi. ñun ah. amuñu ennemi dañuy business. Mm-hmm. jamono ji nag kenn amatul xarit xam lu ñu am àndandoo yu baax. àndandoo. parce que xarit moo jeex. Mm-hmm. waxtaan wax dëgg daf ci neex. ku youtubeur ku nekk ci tele ku nekk ci mm. rajo di wax ci moo géet nangam dama lay ñaan ngalla nga noppi ba nga xam moo géet wala ba toog moom nga soog a wax ci moom. Mm-hmm. bul bëgg bës pour wax ci moom. waaw dëgg la de ñëpp ñëpp ñëpp xam nañ ma ci wax kenn dégg ma tudd turu moo géet balaa may wax ci moom dafa fekk ma toog moom fanaan moom yeewandoo ak moom yendandoo ak moom pendant de jours. waaw. mi ngi may dégg bi mu ñëwee dam ko nee moom mu ne ma naa ma ne ko xaw ma la gis naa lu nekk daj naa lu nekk. mais wait and see li ñu ubbi te xool te di bañ a wax. Mm-hmm. jeex na.